docteur ma Samba Anne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay économiste sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu gis nag ni croissance économique bi fii ci Sénégal koom-koom bi ñoo ngi ci yëyab bi di ko waxtaanee rawatina rapport gi nga xamante ni tukkee na ci banque mondiale ana nan nga ko jàngatee. waaw xam nga rapport bi ban man bokk bertu ma parce que gis naa ni Sénégal dugg na ci beneen phase boo xamante ni dina tax économie bi dina jël yoon. parce que boo seetee ci li ñu jógee moom mooy dañu jógee ci li ñu naan crise Covid loolu metti dal économie mondiale bi yëpp gën a sonal suñu économie yi nga xamante ni dañu li ñu wax extraverti dépend ci biti la ñu dépendre li xew ci biti mooy ñun lay ñun lay njëkk njëkk njëkk njëkk dal donc euh, loolu jeex Sénégal tam dugg ci benn crise politique bu metti metti depuis deux mille vingt donc économie bi yëpp def pause alors depuis élection yi lan la ñu gis dañu gis ni en fait am na stabilité que dëkk bi gën na am stabilité génn nañ ci crise Covid bi génn nañu euh, un peu aussi ci crise ukrainienne bi mu xaw a dal tuuti malgré que jeexagul donc loolu day indi atmosphère bu baax parce que am na espoir bu bees am na énergie bu bees te chaque fois bu changement amee ci politique dafay fouetter économie changement politique bu am transition démocratique bu jaar yoon bu amee ci dëkk toujours dafay fouetter économie bi ay tax économie bi ak lépp espoir amaat nit ñi mun a redémarrer waat ci benn vent bu bees. fi mu toll nii nag nee nañ inflation bi dafa baissé wu na nan nga ko jàngatee lan la mën a jur. waaw xam nga nag dëkk dañ koy wax économie mi ngi basé wu ci ci benn partie am na li ñuy wax la loi de l'offre et de la demande ñiy jënd ak ñiy jaay. waaw mais kiy jënd bu fekkee ni doole bi muy am pour jënd amatu ko parce que mbir yi dafay yëg ne kooku dootul jënd te kooku bu jëndatul qu'est-ce qui se passe lan mooy xew moom mooy économie bi dootul dawati du am doole maintenant yow boo demee ba fexe ba nit ki li mu doon jëndee mu cher mu fexe di wàcc di wàcc di wàcc ba nit kooku amaat beaucoup de revenu am xaalis dafay tax mu gën a dund jënd parce que plus muy jënd. mais plus économie bi di dox plus nit ñi di produire entreprise yi dañuy produire di fay TVA ci état bi hmm. n'est-ce pas affaire yi di dox te économie dafa soxla lool donc loolu mu wàcc inflation bi wàcc mais day jox doole économie da koy jox doole bu baax a baax a baax da koy gën a ñoŋal hmm. ah loolu loolu lu baax la donc te bu continuer noonu lay gën a baax ci économie. nan nga mën a jàngatee li nga xamante ne mooy li ci tukkee muy 7,4 pour cent goo xamante ne wax nañ ko ci euh, muy rapport euh, banque mondiale te mu annoncé ko tamit waaw man damay xalaat sax mu gën ko ëpp tant que nag stabilité bi nga am. parce que lu tax ma xalaat nii mun na ko gën a ëpp moom mooy li ma lay wax yëpp moom mooy am nañu stabilité am na ñu benn régime bu bees boo xamante ni d'après li ñu gisagum d'après li ñuy waxagum d'après seen projet c'est que dañuy am benn forme de management bu bees mooy nan la ñuy fexee pour que ressources sénégalais yi ñu dugal ko ci li nga xamante ni mooy njëriñu sénégalais yi exclusif au lieu que ñuy jël xaalis bi di koy def ci ay dépense yoo xamante ni amul benn njëriñ ay dépenses de prestige yoo xamante ni day yokk suñu déficit budgétaire yokk suñu dette yaakaar naa ni ñii am nañu beneen vision boo xamante ni bokkul ak vision boobu nan la ñuy fexee ba daal di développer économie localement nan la ñuy fexee ba développer bay bi nan la ñuy fexee ba développer chaîne de valeur bu nekk ci tour de bay bi loolu yëpp bu amee plus yemu ci loolu pétrole génn gaz di génn mais Sénégal mënul def leneen lu dul taux de croissance buy yéeg man ci lima yaakaaroon ni mun na sax weesu foofu donc loolu la ñu jëm ci moo tax rapport bi man man bertu ma noonu. alors est-ce que waru tant que ngi am stabilité day doon njëriñ pour Sénégal. est-ce que waruñooy tamit gën a sukkali li nga xam te ne mooy réforme fiscale yi. donc loolu lu muy indi moom mooy day yokk. bool bi nga xamante ni Séné xaalisu Sénégal ci lay nekk li ñuy wax assiette fiscale léegi xaalis boobu yëpp di dugg ci ci biir euh, état du Sénégal évidemment day indi njëriñ. day indi njëriñ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax pour état bi mun a investir pour état bi mun a développer ay projet yoo xamante ne ay projets structurants la yuy yokku yuy dugg tax économie bi gën a dal. ndaxte dette publique bi tamit jot naa yokk euh, bu baax a baax fii ci Sénégal tey tamit dañu koy yëg. waaw lool loolu bu koom-koom yokkoo xam nga bu koom-koom yokkoo dëkk bi amaat yeneen opportunité pour mun a développer wu dëkk bi donc day am ay moyens yoo xamante ni dina mun a fay dette bi. maintenant loolu dafay sukkandiku ñu am benn système de management gouvernemental bu mucc ay boo xamante ni dootul dootul def nu ko neex ñu jël xaalis bi ñu koy dugal fu leen neex loolu dafay changer dëgg dëgg dina tax xaalis bi ñu mën a gagner ñu mën a def ay investissement yoo xamante ni dinañ ci gagner lu bari pour di mën a fay bor bi nank-nank mais bor moom dafi mus a daj bor moom day mais day dokk rek loo xamante ni dafay soutenable dafay normal daal mais bor du fi mu sa dem ku bugg développé wu di nga lebi mais booy leb leb bi na doon leb boo xamante ni day amal njëriñ di nga ci investir. defar ci mu am njëriñ pour population bi ñëpp mun ci génn. est-ce que waru ñooy tamit gën a investir ci li jëm ci production local bi. mais loolu nag moom mooy dimension bu bees bi parce que boo seetee lii lii lii lii gouvernement bu bees bi def moom mooy nan la ñuy fexe pour aujourd'hui investir. sur l'agriculture parce que gis naa lu bëri bëri l'agriculture l'élevage même boo xoolee seen ossature organisationnelle avec le gouvernement ak perspective yi ñuy def moom mooy développer le domaine agriculture développer ko ba nga xamante ni dinañu mën a sax développer chaine de valeur bi donc boo ko développer di nga développer production locale ñun li xew si suñu dëkk moom mooy lu ma la doon wax rek mooy dañoo extraverti lépp dañ ko dépendroon ci bi ci ceeb rek ñi ngi ciy dépenser lu toll nii junni milliards ak lu topp. bi koy jëlee ci dëkk bi boo furu yi tamit ñu ngi kii tamit ay ñeenti téeméeri junni ñeenteeri ñeenti téeméeri milliards yoo xamante ni dañ koy jël di koy génne waa loolu xaj na ci ñun léegi bu ñu fexee ba loolu dootuñu ko mun a jéggaani ci biti day tax donc dootuñu perte xaalis boobu mais dañuy jaay ba mun a génnee ci biti mun a génne ci bi biti am xaalis buy dugg ci biir dëkk bi loolu ba pare nga defar ñu tuddati chaîne chaîne de valeur bi parce que agriculture dafa am chaîne de valeur boo xam te dina créer ay richesse dina créer ay entreprise dina créer yokk xaalis assiette fiscale bi di nga mun a fay say impôt mais dinga permettre sa économie di nga mun a fay bokk say bor mais di nga tax sa économie mun a dox maintenant loolu yëpp ñu ñuy wax rek mi ngi sukkandiku ci un système de management boo xamante ni dafay transparent ba pare dafay tegu ci orienté wu ci que intérêt wu exclusive wu sénégalais yi. alors est-ce que tamit rapport yi nga xamante ne bëri na muy fës saa su ne waaye ndax sénégalais lambda bi nga xamante ne jàngul moom dina mën a xam réellement lan moo ci ne. waaw man sax du rapport yi. rapport yi c'est vrai que lu ñëpp ñoo ko mën a comprendre mais man je dis que l'action gouvernementale doit être publiée ça veut dire que il faut que booy diriger ay nit boo buggee wóolu te am lépp looy def da nga war a toog benn moment nga waxtaan ak ñoom parce que loolu moom mooy indi transparence li fi nekk lii la fii la ñu bëgg dem fii ak fii la ñuy dem de façon temporaire nga wax ak nit ñëpp ñu xam lan nga bëgg def fan nga bugg jëm fan nga bëgg yóbbee dëkk bi loolu dafa am solo loolu boo ko dul def évidemment day daaneel dëkk mais loolu nga war def loolu bu baax la day ba pare day tax ñi ngay njiit ñoom ñu xam fan nga jëm ñu xam li xew loolu dafa baax parce que nit dafa soxla xam dafa soxla am information bu ko amul lekk rumeur dafay bëri. jaxasoo bi day bëri ku ne di wax loolu baaxul. alors ana ban message rek booy lancé gouvernement bi en tant que économiste loo xamante ni xëy na dina gën a mën a comme koom-koomu réewu Sénégal. waaw moom mooy d' abord ñu am un système de management boo xamante ni dafay optimum ça veut dire que lépp lu ñuy dépenser lépp fépp foo xamante ni am na niche yu ñu war a dépenser ñu dépenser ko de façon optimum ñu jël xaalis bi ñu orienté ko ci exclusivement que intérêt wu Sénégal. que lépp li ñuy def nii moom mooy ci li ma d'accord càmbaraat yëpp parce que boo dul càmbar munoo xam li fi ne ak fa nga jëm da ngay càmbar ba pare te même booy teg plan parce que gis na am nañu plan bu bees bu ñuy wax vision Sénégal ñu bëri nag ñu ngi koy critiquer mais man dama ne loolu moom mooy yoon parce que boo ñëwee li li li li li li nekkul ko mu sax moom mooy nga ñëw nga ne sama plan bi moom lay teg mais boo ñëwee ba dugg ci réalité bi ba gis nekk ci gouvernement bi gis réalité bi li gën moom mooy nga adapté waat sa plan par rapport ak li fi ne ak li ñëwagul sax liy waaj a ñëw nga daal di teg sa plan boo xamante ni ci boobu ngay articulé te plan bi nag moom laay wax nit munoo dem fenn bu fekkee ni ci lay jox ndékki bu dee yeewoogul yow da ngay tëddaat doo dem fenn. donc nan nañuy fexe ba fexe ñu dootuñu dépendre lu ci parce que loolu ñu gën a sonal suñu économie dafa extraverti nan la ñuy fexe ba aujourd'hui ñuy mun di développer suñu économie de façon endogène et mun na ne parce que lépp a ngi fi pour mu mun a nekk volonté politique la rek donc ñi fi nekk yaakaar naa ni pour le moment won nañ ñu volonté boobu loolu buñ ci continuer ba pare di nat diisoo ak seen réew di yi lépp mun na indi lu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci développement économique wu Sénégal. docteur Mamadou Samba Hann jërëjëf may fàttali rek ne économiste nga sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax